ñu gën koo xam ci sëriñ am di muudu mbenda xalif général de Baye Fall noonu leen ko ñaanale mboolem xalif généraux yi nekk ci réew mi yépp ñaan suñu borom subhanahu wa taala Yalla na yàlla sàmm leen te yalla aar leen ci barkeb sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ji nag danoo ñëw ànd ak sunu site bi nga xam ne moom lañ tudde global tv seet si sunu xarit sunu baay sunu sëriñ di ko àdduna bi yépp di bàyyi xel muy international muy Serigne Fallou Ndiaye di jàngkat boo xam ne kenn dootu ko présenté ci kenn ñu bàyyeekoo ba njaareem ànd ak wëllëreem woo xam ne seen diggante ñoom ñaar ab kab kab ab ben bis doxul ci diggante bi muy sëriñ alxaaji mor mbay murit saadix moom sëriñ seex kan daaru kan ñu dikk ànd ak sunu caméraman mor maar ak safoor bi nga xam ne di daawuda ñu dikk fekk ci ki nga xam ne moom di sunu bay kon bu ko defee bokk nga xam ne ñu ngi ñuy ci site bu tv bala ñuy def dara rek dañuy yëkkati micro bi jox ko ki nga xam ne mooy sunu baay Serigne Fallou njaay mu nuy bokk yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ci àdduna wërngal képp ñu soog a tàmbalee moom li nga xam ne moom moo di jotaay bi Baye Fallou asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah. noo ngi leen di delloo nuyoo bi. nu mu gën a rafete tàmbalee gu sa jëmm. ñu gën koo xam ci ostas Amadou Ba mu yemoon ci ostas ji rek dana doy xam ne am na lu muy jàngale di ci dolli sunu wëllëri ni nga ko waxee Laaji Mor Mbay moom bu la bàyyi woon it di nga mën a wax su diggante lu bari waaye nag wolof nee na tëdd ci lal mooy xami mattam bi nga koy présenté da nga teg koo xam ne foofa mooy xolom mooy Serigne Cheikh Kane jokkoo noonu léegi bi ñuy waaj tàmbali waxtaan bi nga xam ne kon alaaji ku mu jàpp muy alaaji Mor ku jàpp kër googee tax ba tax na kon moom itam na koy nuyu nuyoo bu tedd ba ci cameraman bi nga xam ne moom ngeen àndal muy taxaw liggéey bi ngeen fekk nu fii nag ci daaru Rahman Serigne Mbacké Madina moo ko tudde woon noonu ba mu ko sañcee waaw kon nag bu ngeen fekkee sunu xol dana sedd guy ci ndax bi ma fi bi ma fi tàbbi juróom-ñaari at laa am ñu jox ma sëñ Touba. rëccuwuma ci nag dara. waaye Fallou ñu ngi jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne xam eh, di wax ne bu ngeen bëggee xam lépp luy xew ci li nga xam ne moom moo di ci réew mi rawatina jëm ci wàllu diine rawatina mag ñu mel nii Baye Fallou Ndiaye ñoom mag ñu mel ni ñoom eh, bu ngeen abonné bu soobee suñu borom yaakaar naa ne léegi dara dootu leen ci umpati Baye Fallou fa may tàmbalee danoo bëggoon a xam kan mooy Baye Fallou Ndiaye ba noppi. jërëjëf dañ koy tàmbalee ci ab jullit la. ndax la ko jiitu ñëpp muy sunuy waajur ay juddit lañu ba ci sunuy maam sunu maam fóoree la muy waajuru sunu baay ah nin la ko waxee bi nu fenee ci àdduna mu tudde nu koo xam ne kooka sëñ falu lañ ko tudde man kiñ ma tudde mooy sëriñ Fallu Cissé yàlla dogal na mu bokkoon ci ñi nga xam ne euh, waajuram di sëriñ alaaji arafan Cissé daf doon wàlliyu ci gàtt rek ndax lépp du mën a xej ci waxtaani pour ñu saraa ko waaye wàlliyu nekkoon Casamance la jekki ba yàgg mu wax na man day bi may tàggoo ak sunu borom di jëm ci ci àdduna mboolem lu ma digg woon ak moom dem ci néegam ba mooma ci dese muy aj dal di tan nak kangam ya ko doy ci fofu ca Casamance Sigansor Casamance and ak ñom di jéggi di jéggi di jéggi ba ñew njaareem mom sëñ Alaaji wax nañ ni bi mu duggé njaareem mo wax né ah, fi day wax nañ mëna fi la mudu Bamba nek ñu ne ko waaw mu ne kon li bala ma gën dëkk bi dina ko xiar ndax nitu yalla lu tegg morom mom non la ko japp won bam mu bo wara xiar a siyaar bi mu yewal fa law ne ko su ngeen démé ngeen waxal mako nako bokkum jullitam mu bëgg a jaar fi moom siyaar ko door a dem ci itteem ba ndaw la ñëwee rek Sëñ Tuubaa daal ko jox ndigalul na ñëw ba muy ñëw nag fekk na sëñ bi waajal ko dem ci roq bu yaatu bu laab mu toog fa di ko xaar bañ ñëwee nuyoo sëñ Bamba ci boppam moo jóg ànd ak moom ba ci néegu boppam nii ma def ak yéen nuyoo waatee ak moom ci néeg bu ne ko aravant mu ne ko naam boobu jébbaloogut mu ne ko nga ne lu doon sooy tànk mu ne mu ne ko bi may teqali ko suñu borom lama ma diggoon ak moom lépp dem ci néegam ba rek ma ci dese ba mu waxee loolu sëñ bi ne ko moom sëñ Tuubaa ne ko arab ma mu ne ko naam mu ne ko kooki la tax a jóg muy néegu yàlla ba ak rasulullaay néeg ba ndax bu nu fekkoon fii deeti nga dem sëñ Alaaji ne ko déedéet te ne naa la wàllu yi la kenn mënu koo nax yaara war a awaamam ci jës bu lu xulóob loolu sëñ bi wax ak moom mu amee noonee al sëñ allah ji gis rasulullah jaxaran gis gis kaaba gi jaxaran lam ca war a def lépp mu def ko ca nag ba noppi wax ne nag kii kët kon du ku ñuy war a romb di dem fenn foofee la dal di jébbaloo ba mu nag yàlla dogal na ah bi tolloo ci génn àdduna fekk sëñ tubaa ko njëkk génn jamono. dafa amoon fula nag dégg naa moom sëñ Alaaji dafa dem ba ci sëñ Modou Moustapha. ne ko sama dig soreetut. waaye lii ma fiy bàyyi muy njaboot. bu ëllëgee bu yàlla taxawal jaam ñi yow xiyam yow laa koy laaj li des ci seenub yaram. waaw sëñ Modou Moustapha. daal koy nangu loolu moo tax sëñ Fallou mi ñu ma tuddee. bi ma amee juróom ñaar at rek. ñu tuddee ma ko jox ma ko nag fekk sëñ Mbacke Madina yeewi ko. ndax li indi sëñ Fallou ci sëñ Mbàkke Madina moo di bi sëñ Modou mu di laqu mbooloo mi fi bàyyi woon buñ dee ay buñ dee junni nit dañu koo xaaj ci digg bi juróomi téeméer sëñ mo sëñ Cheikh Gaynde Fatma juróomi téeméer sëñ Mbàkke Madina juróomi téeméer sëñ Mbàkke Madina nag ci la sëñ Fallou mi ma tudde bokk moo tax mu jàng fa alxuraan tërbiye fa ba mu ko yeewee nag fii nu toog di daara ji la ko jëkk a dëël waaw buñ ko fi dëël rek ñu daal ma koy jox sama juróom-ñaari li dal ci gattal mën la ko ci waxagul seigne Fall nag yarma ci loxo bopam jangal ma jëf Baye Fallou ci leeral gi nga xamne ne leeral nga ko mu jëm ci kan moy Baye Fallou nim ko waxe legi rek bu ne woon Baye Fallou mouride saadix rek wala Baye Fallou mi nga xamne ne ak yëngoom ak dalam lepp rek ci liggéeyal Serigne Touba jaarale ko ci khasside yi ñepp dana xam ki nga xamne ne modi di Baye Fallou ndjay eh, Baye Fallou junj nga ko legi bi nga xamene ne nga ci dal jang. Eh, wax nga ne indi nan la fi nga xam ne moom mooy fii juróom-ñaari at bi nga amee juróom-ñaari at nga fi ñëw kon mel ni yàgg nga fi ñëw ndax sëñ Mbàkke dina moo la jàngal wala dafa laa booloon ku lay jàngal wala dana laa kan moo la dalal ba tax tey bàyyi fàllu mel mu mel ci xam nga xam ne bu fekk doon ne di xaside muy jàngit bu toogoon école jàng jàngale li nga xam ne moom mooy alquran daaray alquranu karim wala mu jàngale li nga xam ne moo di arabit bàyyi fàllu jàpp naa ne loola maîtrise na ko bu baax a baax bàyyi fàllu fan la jànge ba fii nu toog ndax sëñ Mbàkke Madina na maamam jalaan def rek lay def dëkk bu mu sanc bu koy sanc rek ñaar moom danga fa daal di gis mu indi ko dana fa daal di def néegu bi yàlla dama wuma ko def waaye suñu borom suutulu na jàkk ji mu dëlloon boppam moom sëñ Mbàkke Madina wax na takkusaan la sëlmal daal di rëdd jàkk ji bi mu ko dee ñu tàmbali ko sakkite ab xat ba yàlla dogal ñu defan ko tabaxub seng sun borom di ma suturaal nag ba sama toogaay bii de damawu ma ko waaye noo ko def muy jumaay ji musuma sol saaw daal nag it taxaw fi nit ne ko jox ma ci ñaar dërëm ma def ko jumaay ji ba nii ñu ko jullee noonee mu fi tafe woon néegub yàlla boobu it li li la fi indee woon am kàng ñu koy wax sëriñ Abibu Jaane képp kuñ mas a teg ci loxoom mbaa ñu dugal la ci kër gi joxe la fi sëriñ Abibu Jaane moo lay dalal alxuraan ba ma dalalee nag ab diir sëñ Fallou si sama sama turandoo di sama sëriñ dal may jël ndax njaal benn nga dafa toogul woon ndax borom kër bu ndaw waaye ba mu toogee tuuti rek bari na ci loo xam nag moo ma ko jàngal waaw muy alxuraan muy dara ci xasida yi maa ngi fàttaliku bunt boo xam ne ci barsan moo ma ko doon jàngal وعدرنا لأرب مصطفى كرما دهرا بأرف سسي منك يا الله الموالا فليرب مصطفى قصلو تي عايش من من بني أدنانا يا الله قربي دندان وخك عايش من جناوي دي وخن جال اللي ياك دجنان يا الله ويا الله سن ما جانغل خشيدا بو تيال صح كي باي فالو ما صلاة لولو ليرنا ننكو خيرك ممدن كو القرآن الكريم yare ko li nga xam mom modi khassida suma bëggona xam ngir wax ak waxtu wi bay fàllu lu ko duggal ci njàngam khassida ndax da ko doon ci maam wala mu doon ko ci wayjur wala dafa xol xol rek manam njàngam khassida doon lo xamne lu daw ci deretam la mu sóobu ci khassida lo may tontu bay la koy tontu rek modi di kër gi ma la tuddoon muy kër sëñ Mbàkke Madina mhm. ngaawum khassida fa mhm. ndax boo ko dee lim sëñ Mbàkke bu doon lim ak njabootam sëriñ Cheikh Gaynde Fatma yàlla da koo joxoon dara ji joo xam ne koo ko jige da nga mujj bokk ci mbooloom waaye góor gi Cheikh Fall Xattaaba diggante sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ak sëñ Mbàkke Madina ci la nekkoon ba bi nga xamee ne Cheikh Lo mii daana jóge njàmbur di ñëw Madina di fa nawet Cheikh baala ko mi ngay dégg muy jóge njàmbur dëkk bu ñuy wax Kamit Samb ci wetu Louga di ñëw Madina di fa nawet si moom itam ci la ko yàlla feeñale mu ñëw daan fa nawet di fa bay waaye bu dongay mosaa jóg di wër di yalwante dongay booba dañ daan ti xasida laara bi laa nag yooyu yëpp daaw leen fekk dañ daan yëkkati xasida di wër Cheikh Lo moomee nag daal daan dégg naa da daan socc seen biir ñu jikki ba yàgg ñu naan nawetaankat bi day moom day mën naa jàng de loolu kat te la Cheikh sasoo ba taxaw ne kem waaye dégg naa teewul sëñ Mbàkke Madina daan ko wax naan del del jigéen ñeeg Cheikh Fall maanaam di ko ci xiir rek demal di jigéen ñeeg Cheikh Fall xattaba loola di law di law ba bën gisatu sëñ Cheikh Fall xattaba gisatu Cheikh Lo am na ku ne ñokket ci biir kër gi ci donga yi ñu koy wax sëriñ Wàdd kenn dàkkoon a jàng waaw bu sëñ Mbàkke Madina daan tukki di ñëw fii sëriñ day bokk ci ñu daan ànd ak moom ndax boobu wàcc na ci daara ji suñ masaa julli timis ba kër gi ni mu def koñ bële ak bii sëriñ de ko daan bàggante tey mu yëkkati jës bu o ëllëg mu yëkkati mooy wala mu yëkkati mu xaddamaat waaye ke ba ba di jot sëriñ day jàng ñuy dégg njàng moomee nag nekk ay gune ci suufam waaw léeg-léeg rek mu woonu bu ne bu ne noonu yàlla mu lu ay ba yàlla dogal guddi gi jëm dix heures ñu door a noppalu lii de lu ma dugal ci njàng ci la bokk waaw te fekk mu di choc bëgg waaw nekk ci kër gi te fekk kër gi lool loolu loolu la fi yàlla def muy muy jàng say ndax sëñ Mbacke Madina wax nañ ne sëñ Mourou Moustapha nekk na Bayla astaghfirullah daaru minam boo génnee Bayla tuuti rek boo xoolee te jëm Taïf boo jëmee Taïf boo xoolee si seen rajo di nga seen daaru minam sëñ Mourou Moustapha taawu Xaadimu Rasuul nekk na fa jekki ba jant bi sa booba dongay dañ daan yëkkati bi jant bi sooy nak ba dox ab diir te déggul yëkkati bi sëñ Moodu Musaa ci bopam laaj dal na ah waaw doo ngay fi daan yëkkati araf yi lu leen gàllankoor ka ñi me wax ak mom ah, na ko du doon foog nan ne ñaar ci la bokk bu jëkk moy xef nañ tassaro nañ ci réew mi ci tundu wi yelwaani biko ñi ci dess itam rafle nañu ba te bi japp leen ba ñoo jóg dégg naa ba ba ba ko sëñ Mbàkke Madina déggee ci noppam. Mm-hmm. dafa jog daal di taxaw ci sàkket sàkket wa ci ginnaaw. Mm-hmm. moom di ko jéemal boppam. Mm-hmm. ndax bëggu ko sëñ Modou Moussa gi. waaw ginnaaw yëg ne sëñ Modou Moussa bëgg na dégg xasida moom suñ Mbàkke Madina mu di ko yëkkati. waaw di ko yëkkati. waaye nag ba wax nañ ne ba ba mu demee ba xam ne lii nag mënut nekk ab cëram bu wéy. la ne sunu borom maa ngi ñaan mu dima may ku ko man ku ko man ñooñu nag yàlla dimbali. waaw ah, alhamdulilahi rabbil alamin ku ko man joojee yàlla feeñal ca Baye Fallou Ndiaye tombale ko ak li nga xam ne muy bëgg-bëgg ab sëriñ bi eh, dafay am loo xam ne saay bu amee su waxtaan yàggee rek day daal di feeñ dañuy xam ne Baye Fallou Ndiaye ni mu mel ci xoli doomu aadama yi mel ko ci xoli murid mel ko ci xoli taalibe yi loolu sampab sëriñ Mbàkke Madina la boo xam ne bëgg-bëgg ab sëriñ Modou Moustapha bu mu bëggoon ba yàlla dogal doolo daal di cay am suñ doon dikk tey bëgg a xam diggante Serigne Mat Samb ak Baye fallu Ndiaye bëgg naa koo xam ndax lee leeral nga léegi ci Baye Serigne Wade ci xaside yi mu doon yëkkate ngeen nekk ci agronome ba suñ borom dogal tax doo tombeeg seenug bëgg lii di njàngam xaside yi waaye léeg-léeg nga dégg ñu naan Serigne mët Samb mooy ki nga xam ne moo toqi Serigne Fallou Ndiaye moo ko tàggat ci mu njàng ginnaaw yàlla dogal na ñoo ngi jotaay ak Baye Fallou Ndiaye nag moom la ñuy def mooy laaj ko digganteem ak Serigne Mat Samb danañu ko leeral tey jii incha jërëjëf ku ci mën a wax loolu juumoo ndax ni man la ko waxee jànkat bu ñuy woo dëkk ak dëkk moom ci sëñ Wàdd lañ ko tàmbalee bi ñu tàmbalee ci sëñ Wàdd it daana bàyyi ko Madina ma koy fàttaliku muy jàng si Thiès ku ñuy wax Madun Bey Njaay am na ñu ko daan wooye sax duxóoli dafa bëggoon araamul ala man udaawa aba doxooli jinaani daxilan tawi mhm. cheikh loo da ko daan baamtu mhm. wax nañ ne madun bëggoon ko nag boobu cheikh loo accès ci way woowu mhm. madun day day am lu mu téye ci loxoom bi ba mu fees ci xaalis fu mu ne doxooli rek mu jox ko waaw mujj na nag doxooli lañ koy wooyee doxooli moomee nag sëñ waat daana jóge mat ni ñëw di ko jàngal ci Thiès waaye bu daan ñëw day yóbbante fii fi noonu rek nanu xaar leen nu foofa bu ñëwee nu ànd jàll Thiès kon kooku ab tàmbali la biñ defee noonu sama mag ju ma bokkal ndey muy Ibrahima Kan ci ñuy wut Cheikh loola bokk sëñ Wàdd Ibrahima Kan Mastafam Maxtaan Mbay ñooñu génération bu sëñ jëm ci ñu wut Cheikh ci lañ bokk Ibrahima Kan moom daana jóge Ndakaaru di taxaw fii fu jëm ci kanam rek yóbbaale ma ba ci biir loolu nag yàlla feeñal Sëriñ Mouhamadou Samb am ci ñima daan andal ci ibrakan ku wax Moodu na am na ngor su nek ci daara ji day bo mënoon di fa jaar di ko jël man na no jappale ci ci ci liggey bi de ma ngi ku yoroot bu mot sambu taxaw fi ci penc bi ma may na bi nan koku wa bobu jankat ban la mu mo yore ben car rapide bam taxawé sal Sall mi ko waxal ne ko na fi jaar mu daldi di na ma dañuy jangi xombal ku ñu wax Serigne Diallo nekk ci Sandaga dafa faatu ñu koy defal ñeent fukki guddi mboolem bëgg mut sàmb jàng keroog laa jëkk gis mut sàmb fekk nag ma takk aw sàkket woo na juróom ñetti meetar ma bàddi ko di ko sàkket ba mu ñëwee wax ma loolu ma ne ko ah, kon xam naa danga may may rek ma yàggale sàkket bi ndax xas naa ko dindi su ma ko defee ba noppi nag jéem laa fekk xombal keroog laay jëkk a toog aw mut sàmb boobu ab groupe am Kaolack la ñuy jógee amagul mbooloo Dakar yàlla dogal bi eggee sax ci war a génn ci tànt bi ba mut sàmm taxaw damaa tàmmoon man kuy jàng ma sos ci yow waa Kaolack nag xamuñu ma ne ma doo a sos fii saal bi ma boole woon nag Modou nag ne ne ne Modou gars yi waxee ba jële fii Fallou Ndiaye man dinaa duma duma aw te boobu saal boobu saal kenn mënu ko bàyyi waaw waaw taamu nañ ko bi mu waxee loolu Modou nag Modou ndeysaan ku nit ku baax ku am am xalaat dal ne ana Fallou ma ne ko ne mu dal may xëcc ba mu sëcc mbaggam mi mu door a tàmbali waaye bi ñuy dem ci fajar xamut boobu sax xamu ko ki toogoon ci taabal ji da leen ne ngóor siit bu ngeen ko fi jële woon ay am loo <laughs> ca nag ci laa tàmbalee aw mat sàmb bëgg ku nag lool moom nu mm-hmm. mooy bëgg nii rek bëgg naa ni mat sàmb ndax xam naa lam doon def mm-hmm. yàlla man loo nag ko mm-hmm. man nangul ko ko bu wér wér wér waaye ku mën a jàng ak ñi ma la limal ñu weesu ñëpp ñoom ñëpp mën a jàng waaye moodu si moom laa mujj rek si moom laa mujj rek yàlla dowal bii mu làqoo nag ci juróom-ñetti waaye boo mën a àdduna buñ doon téeméer juróom-ñaar fukki keroog lañ jot ci man. fàll foofu lay duggee àdduna buñ doon téeméer juróom-ñett fukki yee ci la ñu jot ci man Cheikh Mouhamadul Fadil Ndiaye ñu fekk ko fi nga xam ne moom moo di Daaru Rahman di dëkkab Serigne Medina. programme bi Serigne Fallou Ndiaye njëkk a jàng ñu ne ko programme bi yow lan engagé yaa koy fanaane bon programme la ak ñaata la ca fay woon bu ne mën nañ koo xam <laughs> ca jamono jooja. waaw maanaam ma ci mën wax day. Uh-huh. tund wi moom bari na fi ñoo xaye ba loolu amee daaw ñu ma engagé sax dama daan dégg ay jàng rek xam nga nit ku bëggam ah dafa am góor gu nekk lan fii mu ne làmb bu xasee ba Sadio kenn bettutu la fexeel ba bu la kenn bett moo tax foo ma a dégg am jàng te man ma doon sax bëgg dama fay dem waaye nag lii nga ma laaj maa ngi ci takk dëkk bu ñuy wax mbaadaan mbaadaan waaw fekk nañ ma fii de bëgg ma jàngal si leen wax ga dinaa ñëw duma ñëw sax keneen moo ko yoroon ku ma dëkkaloon ci dëkk bi te muy saama waaye booba jekki sax di wax ne jox ma nangam musuma eggaguma ci eggaguma ci la ma ca takk daal mooy xam naa ne fii nu toog ba nu eggee ci bis ba jël nañu ñetti sareet sareet bu ne fay la ñaar téeméer arrêté tour nga xaar nu fa nu jàng basamaan set nu dell si waat fii loolu daal xam naa ko ci Mbadane. muy lu am solo lool ci jaar jaar yi ki nga xam ne moom moo di Serigne fàllu Ndiaye di soppeem ñëpp di ko ñaanal suñu boroom yàlla gën ko fee yàggal te gën koo may ak wér. Baye Fallou am na laaj yoo xam ne dafa des ci kanam waaye damaa bëgg a laaj laaj yi ba pare rek soo a ñëw ci laaj yooyu ndax sa diggante sa Mahamadul Mourtada danañu ko laaj ak yeneen laaj yoo xam ne cay tegu la waaye Baye xam nga mbir liggéey bu nekk. léeg-léeg nga ci am jafe-jafe woo xam ne yow da nga yëg na am na ci jafe-jafe ba ci ministre bois bi liggéeyam laal sax léeg-léeg mu xaw a dem ba léeg-léeg mu am jafe-jafe ci lal commande bu mu jël ministre métallique bi noonu ban bis la sëriñ fàllu yëg yëg ne am na programme am na jafe-jafe maanaam tey rek la ay programme di jàng ci jàngkat bu ndaw bii soog a génn nga xam ne engagé na la ci programme nga dikk ci baas ñëpp yaakaar la nga tàmbali sa baat maanaam sonn coono boo xam ne la nga engagé yaakaaruma ne da nga mën a yeggale bis bi ndax loolu mas naa dal sëñ Fallou wala déet. waaw waaw waaye lépp nu sant ko yàlla. ndax fi nu toog. bàyyi noo bàyyi noo bàyyi bàyyi ko noonu fii boobu tàmbali naa nag di luye oto. xamaguma oto waaye maa ngi luye oto. juróomi fan yii muy màggalu Mexe Lambaay. ma départ fii ak mbooloo mi oto bi fees del. nuy daw. comme musuma dem mexe lu dul keroog. bi ma ñëwee ci penc mi. xàmmeeguma kër gi may dugg. suñ borom dogal chauffeur bi nag. place bi mu taxaw. taxul mu baax. bi nga xamee ne laaj naa bañ ma ne kër sëñ bi ci boppam ci ngay dem. booba sëñ ma Samba moo fi nekk. ban ne bërit. chauffeur bi def première. arba bi raase. ñun ñëpp fa la wàcc. doog suñ tànk dugg nuyu sëñ bi sama yaram it am na lu ci nekk loo xam ne xam nga baat moom bala ngaa xam la ci biir rek da ngay wax waaye en tant que waxoo toog nii rek di nga ci am loo sentir waaye doo mën a xam lépp falan toog booba une heure et demie deux heures rek ma génn bokkoon naa ko jànkat bu ñuy wax sa sëñ Abdou si ceeb moo nu magoon ba mën noo jur bi mu demee ba heure bi jot ma génn ñetti bayit yu ànd mënu ma ko wax baat baat bi gàntal waaw am na sax ñoo xëy tëb nañ ne xamal na ne jànkar bu mag bi mu bokkal guddi gi ah te yàlla jox ko tur te kii jàng bay toll ci ba a bàyyi nangam nangam waaye mën na maa waatal ci yàlla ne du ci sëñ Abdou Si lu yàlla indi woon la guddi keroog mujj ma jàng sëñ Massamba Ndiaye daf ma woo ci kër gi dal may teral farliku naa sax mu dindi ay doomi fur yi jox ma ay pomme orange ma dal di jëfëndiku mu ne ma sama xol sét na guy duggaatal nga dellu te xamna lu yalla dogal da fay am mexe jangat na ko lu mat ñeent fukki at kon nga xamne ne mhm. ah, ah, lépp rek sun borom sha Allah lolu amna solo lol bu baax baax ndax lolé dana dal eh, xelam ndaw ñi nga xamne ñi ngi yëngu ci xassida yi te am ci bëgg ngir gis ne nit ku nekk lamuy yëngu du ci massa ñak am li nga xamne mom modi jafé jafé Eh, bu ko defee kon fi nga xam ne fa la ñuy geneen kàddu gi rek ci wàllu njàng mi mooy ñàkkul na Serigne Fallou bi mu duggee ci njàngam xasida yi te kenn ku nekk xam ne xasida yi borom wax na ne maanaam sama eh, sama karaama mooy sama mbindum loxo kon eh, mbindum loxo moom nga xam ne mooy karaamam teraanga ju nekk am na ci kon teraanga jooju nga xam ne yàlla dogal na danay am ci xasida bàyyi ko ci xasida yi li ñu doon laaj mooy ba bàyyi Fallou Ndiaye bi muy jàng xasida yi ba yëg mi ngi jàng xasida yi réew mépp soxla ko àddina bi yëpp soxla ko jan teraangaay àdduna lañ ko mës a teral ci baas boo xam ne yëg na teral nañ ko teraanga ji njëkk ci moom yoo xam ne yéem na ko mu buur bëtam jërëjëf lu suñ borom def la xam naa dañ ciy tànn benn wax ceeg yow waaye fañ nu ko jëkk a defalee ak fiñ nu ko mujj a defalee ëpp na benn waaye mën naa ci jël ñaar du jitaayam bii de mhm. mooy Alaaji Mor bu neexee jëkki ko mhm. damaa dem daaru kan mhm. sëñ Cheikh kan may waajuru sëñ Cheikh kan mi fi nekk am na benn néegu ñax bu fa nekkoon bu mag boo xam ne sëñ mu Awa Bal lañ ko fa defaloon sans borom dogal sëñ Cheikh kan waxoon na leen ku ci man a dal bu sëñ Fall Njaay ñëwee da génn ba ma ñëwee ñu dogal ma ca néeg ba ma ki samay weer roof ko ci permis bu waxtu wi agsi ma jóg yeesal njàpp yor sama kurus tuuti sol sama yére xool weer yi gisuma ko ki ma doon taxawu yëg na weer yi jël nañ ko yàlla xam ne ni wax lu wuma ko ko waaye dañoo ñëw ba ci bâche bi ak xiram tax ak mu xam ne weeree baax na mu daal jël rajo bi ne fii sëñ bi dalaloon sëñ Fall Ndiaye jël nañ fa ay weeram maa ngi leen di xamal ne nag mboolem tund bi ku ko fi sol ba ma ko gisee dinaa ko xam bi mu waxee loolu alaaji Mor mii toog teraanga ju sedd sama xol sedd xolam ña toog ñëpp ndax booba yàlla jox dugal na teg na ko ci am ndaw lu mu war a am ci gànjar mi ngi koy am ba mu déggee loolu la ne ñokket dal di tekki ay weeram takkal ma def na ko lu mat juróom-benn at ba yàgg nag mu soppiku ay yére. man mm-hmm. naa laa giñal sëñ Tuuba ku ko dégg dooma ci bare mm-hmm. saa boo ma gisee lu gën ci sama yére ma sol ko mm-hmm. moom mi mooma ko xotti waaw di nit ku baax ba ko ñaareel itam téere yëmbal jàng naa fa jàng yoo xam ne ba ma xëyee ki ñuy wax sëriñ Ablaye Diop mbër bokk ji sant Diop a moom Dakar ndekete bi jàng yi dëpp malee xottil na ma garab bu rabal mm-hmm. nuñ ko war a ñawee xam nga lebu yi mm-hmm. ñu ñawee ko noonee mu boole ko kaamilu alxuraan mm-hmm. ba ma duggee ci baax ba may waaj a jàng mu dal koy génne ànd ak soxnaam ñu solal ma ko keroog day addina bépp taa ah, képp kuy bëgg ci xasida yi waxuma la kuy bëgg ci Fallou Ndiaye waaye képp kuy bëgg ci xasida yi keroog bëgg nga ndax Ablaye Diop mbër daf doon kenn ci lebu yi mm-hmm. ba tax na loolu it mën naa la ko musalagun ci lii waaw jërëjëf macha allah bu ko defee fi ni ñëwee rek mooy diggante Serigne Fallou Ndiaye ak murtada, Mahamadou Mourtada ndax kenn ku nekk xam ne ne Cheikh Mahamadou Mourtada daana tukki di génn réew mi di dem di tukki ndax Cheikh Fallou sëñ Fallou Ndiaye mas naa anda ak murtala Mourtada ab tukki comme ni mu ne def di tànn ay jàngkat di leen yóbbu ak yu mel noonu ak digganteem ak sëñ Mourtada waaye laaj bi dafa rëy mm-hmm. ndax fii nu toog biñ fi duggee laa leen ne photo yu fees a fi nekkoon néeg bi saal bi waaye bis boo xam ne yëgal nañ ma ne góor yàlla Cheikh Moutalla mi ngi mi ngi ñëw xombal kër Alaaji Ale Fall falaa ko fekk nuyu ko fekk nag la ko jiitu nu xaw a nekk ay donga boobu yaatoo gunu ci adduna fu ne nu jëm fa ñu nekk ay dong ci kër geej nekk ci biir xombol biñ demee ba waxtu wii ñuy noddukat ñu jikki ba yàgg mu des ay minit sëñ mu tolaa ne galañ ak watiir bi nu yem ci moom maag sama benn xarit bu fa nekkoon nu di ay dongo mu ne topp toolil ma fi bara bagage yi jullikaay ñu daal dem génn seetal ak sëñ Bakki Madina gi génne der bi mu jàpp gee sax duma ko fàtte waaw ba mu defee ñaari rakka daa sëlmal ma daal ne yéen ñi fi dëkk yëggale leen wan ma ne day wàññi man booba xaw ma wàññi ko yokk wan ma ne day wàññi yëggale leen ma ne ko am ah, na sëñ bi ginnaaw yàlla yaa taxaan may julli mu ree keroog ba muy génn nag di dem la sama xel jëkki dab dab ci ma yëkkati bayit yi muy waj al maqaam yi maqaama murtada an nasin fi xidmatin wa ka asanin asil arani li may doon doon gune moom laa ko gunge ba mu duggaat ci voiture bi. Mm-hmm. waaw la ci dolli ko it muy génn gii muy génn di tukki. Mm-hmm. yàlla mi dogal dogal na. Mm-hmm. Amérique lan ko jëkk a defee. avant nu koy def ci Afrique def nañ ko Amérique. yàlla mi dogal dogal na. mu fekk ma fa. fekk boobu yaram wi moo jokkoon tax ma dem foofa. ba ma fa fekkee itam. njaboot gam fa fekk muy jullit yi ak taaliba yi ne ko yàlla kat dana fee dajale ak sëñ Fallou Ndiaye. Mm-hmm. ah te dafi taxawal guddi goo xam ne. Mm-hmm. at mu jël rek danay wut kunu ko jàngal. Mm-hmm. yàlla dogal nag mu yem ci. nu bëggoon. boo nu ci may ndigal mu mu jàng ko sëñ bi nag daal cay nangu lool lool lool. bi jàngee jàng yooyu nag. alhamdulilah rabbil alamin am na lu yàlla def ci suñu jëmm. bi jàng yeggee nag sëñ bi war a dem ci état yi. mooy Los Angeles Washington Atlanta Chicago Cincinnati bi nga xamee nag war na caa dem ñii nga xam ne ñoom la àndaloon mëne su leen a yóbbaale ñoom ñëpp ak ñim fi fekk léegi nag ku ne wax ne maay dem léegi nag bi coow li yëkkati ko ba jëm kaw billaahi wallaahi sëñ Mutula moo leen ne woo leen ñi ni jëm ci ñoom boo leen fekkee ñu toog da ngay defe ne duñ boroome xalaat waaye xalaat lañu am mu ne leen woo leen ñi ñu jëm ci ñoom ñoom ñi ñu jëm ci ñoom ñu wax ñi ñi bëgg ñu ñëw waaw mboolem koo xam ne yàlla dowal na euh, woo nañu la jëmmi sëñ Murtadaa ji sëñ Sàmbay Fàllu Njaay waaw ñett ñii sëñ bi nag leen ko li ñu wax nañ leen ci fekk ginnaaw yàlla ak yonent sama bunt ci sëñ mu talaa bii xombal la ci kër sëñ Mbàkke Madina bi ci des bitim réew la Amérique yàlla mi dogal dogal na sax ma kenn waaye mos nañoo toog di xéew lu ndekki ay wax nag carax di jóge ci nit ñi jëm si ci man ku ne wax ci sa xalaat waaye sëñ Moor Mbay warak ñaari kaamil sëñ bi daan jàngalu ginnaaw tisbaar bu ne sëñ Moor Mbay moo ko daan séddale sëñ Moor a jekk ba ca suba sa mu gis ma ne ma yow day bin toogee ak sëriñ bi ndax man dama xaw ma xawoon a mel na lu ko ragal mm-hmm, mm-hmm. bin toogee ak sëriñ bi day gars yi am na waxtaan yu ñu yëkkati waaw ah, bu xóot ci lool waaye la ci sëñ ba dugg moom sañ naa la ko wax man na ko amoon ah, na ma nee na da ngay borom Pastef waaw mm-hmm. <laughs> macha allah macha allah moom ci digganteem ak Cheikh Mahamadou Mourtada eh, wax na ko léegi ci barab bi nga xam ne tey jii ba nu fi dikkee rek lañu ko présenté wax ne keroog bi nga xam ne Cheikh Mahamadou Mourtada ñëw na fi ci la ñu génne mboolem fëta yi fi nekk moo taxit nag ñu barkeeloo li nga xam ne moom moo di toogaay bi euh, damay faral di wax ne day wax ne ku ñaan ñàkk boo jëndee am may ñëw léegi euh, sa xarit di alxaaji Mor Mbay wax na ma sa diggante leen ci seex Cheikh Mahamadul Mourtada euh, jàng yoo xam ne jàngoon nga ko mel ne fu ngeen àndoon ab tukki mu dajale woon addi ju bari joo xam ne moom Cheikh Mahamadul Mourtada dañ koo defoon ci kaala yut la ko nga jël loola wëlbati ko defaat ko ci kaala la nga dajale woon yow da ko sa kaala ak bopp boole ko muy ñaari kaala nga dikk jox ko Cheikh Mamadou murtada ne ko ñaanal ma rek loolu laa bëggoon gën ma ko leer sëñ Mor moo sa xarit moo ma ko doon wax lu ma wax doy na ma ah, waaw nag maanaam bëggoon mu ko ci kàddu fallu <laughs> waaw dëgg loolu li koy mooy Allemagne la xam nga léegi Amérique laa lu tudd Allemagne la te Allemagne lan fa yàlla defal ña mooman ba mhm. liñ jëkkoon a gàntu mhm. moo di du ngeen fi lekke man mhm. na leen fee jox ay néeg waaye ba bu ngeen wut fu ngeen di lekk ci biti mhm. bu lekk jotee ngeen dem ndax lii ngeen di lekk day xeeñal hôtel bi loolu lañ jëkke woon sëñ bi nag ne leen dal di wax mbooloo mi ne leen buñ leen tooñ nañ leen di fekk ci seen ak ci seen i aada génn waat naa ci yàlla bokk naa ñi doon génn génn mi ñaari yoon bu ci nekk danoo dem ñu luyee benn barab boo xëj nan fa nu dafa xewloo ba yàgg yàlla dimbali leen ñu ne léegi euh, buñ ko fi toggee waaye ma neen ko fi lekk <laughs> ah mm-hmm. bi loolu amee nag bu ñu koy topp di ko topp ba xam ne léegi nag kon lu ñu fi gànt woon kat nangu nañu ko mm-hmm. ma fekk néeg bi sëñ bi ne mm-hmm. ma taxaw ci bunt bi dama ko fàtte si nit laa doon jàng ma di ko jàng di ko jàng ba yàlla dogal mu yegg ma dal di añuridu bi nag dikk fekk mu sono loxom da jorom bi bi ma ko nuyoo fekk ndegate euh, wàññi na ab lim wàññi ab lim bi ma ñewé ak sama ñak ba suku nuyu ko mu dal ma koy talal ma téye nak sa bop. ab ndax xaw la ma jëk jox war suku aduna ma téye sa bop nag xaw a ragal ba yag ma yërëm ko ci talal jim ko talal man nangu ko bima ko nangoo nang ne ko sëñ bi xaw na maa ñeme nag man ci wax ko ku mu doon. ma ne ko sëñ bi dama bëgg na nga dimbali ma. ndax fii ma la fekk muy ala dama ko mos a laaj paas na mosuma koo laaj paas koo jox sans passeport. kañ nga ñëw rek la ma sëñ bi wax. waaw ba ma yéegee ne mi ngi dem barab sangam daal kañ nga ñëw rek. bi ma ko joxee nag ma ma ma ma ma ma gàntal téye sa bopp. ab bi delloo loxo bi ma mujj ko yërëm ci tàll ji ko tàllal. ma daal koy nangu nag ne ko damaa bëgg. nga soppil ma ko. ndax fii ma la fekk di Allemagne. li muy sori sori yàlla ngi ma fi indi ci woyof gu woyof. te jaarale ko si mbindum waajuru gu tedd wa. boo ma waxee loolu ba noppi sëñ bi ma. loolu nga ko soxla dëgg la waaye paas seer. masala nga xam day gëndi eh, jëm kanam eh, bu ko defé mel na ni waxtu waa ngi cate ñu bëggona laaj Serigne fallu ndjay bi nga xamé né wañina ay programme am ndax buma né wañina ay programme am mooy bi magal gi jub banni ne bisab tey ji bu delsee danañu na jangal si wëllëreem ku ci mel ni Serigne eh, alhaji Mor Mbay mi mom Serigne Cheikh Kan daru Kan ak yeneeni programme yo man ci bindu lu mel Touba Refan mën na cee tudd lu mel ni gàmm kër Serigne Mbacke Medina kon maanaam dafa wàññi ay programme am ndax Serigne Fallou njaay am na ci ak njabootam ñoo xam ne moo xam doom wala jarbaat koo xam ne tànk ya mu jaaroon jaarloo na ko fa ba tey jii fépp foo xam ne daanañ fa tàntal Serigne Fallou Ndiaye te yàlla dogal Serigne Fallou Ndiaye mënatu faa dem ñooña soxla Serigne Fallou Ndiaye am ku leen joxañ ku mu leen joxañ mu doy leen am na ci njaboot gi koo xam ne dana leen dana ko mën a joxañ ngir mu dem dox tànk yooyu nga xam ne moom la fa daan dox te moo te xasida Serigne Touba bismillahi rahmaani rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رحمن يا رحمن بريال يا رحمن يا رحمن يا رحيم رب بما Ma الأسخان خلف جاء بجاي أفضل من لله قد لجا dañuy wax ne wolof dina ko wax naa doomi mbër jàngil bëre yàgg beri dees na ñam ki mën a bëre ci katt tamit war naa bàyyi xel ci ne lam bëgg bu ko amee ak mag dana ko di ma daaw jéeg ma dem ba ci dugg am xel bu ma dogale. Mm-hmm. naa am ah waaye ah, yow boo jàng ba màggat da war a bàyyi. Mm-hmm. xam naa da doon wut lu ma merloo bu ma duggee du ma mën a jàng. Mm-hmm. waaye lii nga wax ak kent la. noo ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fi ne. te ni ko waxee. mépp njàng moo xam ne. waxatuma ne maa ngi jàng la ma daan jàng de. waaye ni ko lima ci El Hadj Mor mii. fi man. ma yëg ni lii ak bëgg ma mhm. te mooy lu baax mhm. lu ma ca man dama caa war a sawar mhm. yére yëpp ma terale keroog ci bis boobee muy euh, bisu safar bi mi ngi nii ci kaw lal bi waaw waaw mi man euh, dama ko bëgg a nekk bis boo xam ne xam naa lii sax lu rëy la ndax fu ne lay feeñ waaw fu ne lay feeñ bu ma bu démb doon tey ma sol ko waaye nag dafa kawe ci man kawe gu toll ni nu ma ko mën a denc rek dama koy denc noonu ku noonu mënu ma koo tàngablu ni ko waxee gàmm gi toogal na ma ak sëñ Ibra ba ko dama bëgg nga dimbali ma rek mbàkk ma yooyu tel gu ndax gu nga yegg du ca baax waaye ba ma demee ba xam ne itam am na lu ma yàlla dénk ci tànt yi waaw wóor na yàlla wóor yenn tibi ne tagguma ko samba waaye sama dugg ci tànt bokku teg ma ñàkk caa dugg damaa dellusiwaat moom ne ko daal wala fa nee na fa yow a ma ni yeggu gàmm gi dama ko bàyyi woon ak xale yi ñetti yoon waaye dama fas a toogaat na ma ko doon defee ma di ko ne waaye bu la fa yàlla indi wal ren ci da nga gën a da nga yéemu te naa ne bu njigéen ne ah, delsi naa ah, ah, kanam la jëm ak màggalu Tuubaa màggalu jëkk gi boo demoon kër sëñ Mbàkke na moom la ñuy sow ba tax na rek yàlla mi dogal dogal na ah ku am rak wala fer wala rawatina doom mhm. sëriñ sama doom a ngi dafa jóg léegi su demee ba war cee sànni ay kàddu it dana ko ci def ci gàttal waaye daal du yenn doom sax am na ku nekk ci Italie mu tudd ba tudd ko sëñ Mbacke Madina moom itam ma nga fay yëngatu ak ñeneen ci njaboot gi ñëpp rekk waaw ba tax na ko noo ngi cee rafet njort baax rek. kon fi ñuy wàccee suñu rek mooy Baye Fallou Ndiaye mooy jiite daayira bi nga xam ne mooy daayira ma waaxi bu naafi di daayira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem jàngkat yi xasida yi. Eh, moom laa bëggoon rek bu ko defee nga yëkkatil ñu ci ay kàddu yoo xam ne da nga ñu koy dénkal jàngkat yi nga xam ne tey jii ndax dañuy waral di wax ne ku la jiitu ci néegub suba yow ma ñëw ci timis moom ma la jiitu moo naan la moytul barab sangam ak fii ngay jaar te jàpp naa ne teraangaay Baay Fàllu Njaay li jóge ci xasida yi bu fekkoon ne maanaam danga ko caa génne yaakaaruma ne Baye Fallou Ndiaye dana deseeti mbaxana moom sol ndax man jàpp naa ne lu mu am lépp ci xaside yi la bàyyeekoo kon looy dénk jànkati xaside yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi lay déglu ndax ñoo boole seen bopp muy benn ñu jiital la ci euh, daayira bi nga xam ne moom lañ tudde naa Naafi euh, su ma bañu ta wax lu ma leerul sax ma ne ñàkkul ne réunion bu nuy man di amal fii lañ koy amalee fii ci Daaru Rahman mbaa feneen fu ñu ko amale ci sa ndigal lañ ko mooy fii leen koy amale ñetti weer yu nekk suñ ma wooyee ne ma war na noo réunion de may wax du Dieye seen secrétaire bi wooteel mu woote wax bi sàngam nu daje fi yàlla mi dogal dogal na li nga wax ci luñ leen di dénk mooy genn kàddu googu ma ne góor yàlla ton na ko ci mbooloo mu toogan di wax ci man mu ne day nitu positif pëstéef nag dafa yóbbaale lu bari ba tax na kon noo leen di dénk lu ci waaye def na ci jiital suñ borom ndax suñ borom moo am lépp te man koo joxe waaye wara a jublu ci jàngi di jàngal nit ah, am na waajtaay yooyu warut sa diggante ak jëm ci xasida yi tey dégg naa ñu ne Cheikh Lo wax naan ni suuf nangoo mm-hmm. gàncax mm-hmm. ni la suuf nangoo am njàng mm-hmm. kenn ku ci nekk barab booy jëm na ko jàppe ni sëñ Tuubaa nga fa waaw ñu góorgóorlu ci gën a dëggu ci li ñuy def waaw mooy loo ci loo ci loo ci loo ci loo ciy wax nga wax ko rek na ko boroom waxee woon ndax asbil sutóori aslih umóori kasir xóori bilaa ki daay benn jànkat mënut a mos a ko muccet ba dolliwaat ci lu ëpp doole loolu sëñ bi wax ba ku ci yem la nga bëgg lépp suñ borom dana la ko ci defal. ah fii nga xam ne yàlla dogal na fi lan toll mooy kii dugg si sëtub sëñ moom sëñ Touba waaw mi dogal dogal na ah, fii nu nekk ci daara ji. sëñ Mbacke Madina fi bàyyi woon wajuram muy sëriñ Abdou Mbacke sëriñ Abdou Mbacke moom sëriñ Baara moom mi nag sëriñ Abdou di wajuram muy sëtub sëñ Baara yëg yëg ni seen jotaay baa ngi fi moo tax mu rëy ci moom lool lool yëg naa ne képp bi ñëwoon na fi doon ma nuyu ndax dafa demoon Amérique fan yi bu bi mu ñëwee man yëg naa ne ñëw na egg naa ci këram nuyu ko waaye ah, damay nijaayam ndax maa yaayam noo bokk bàyyi dib goroom it ndax sama doomi bopp moom la yore ba tax na ko laaj boobu nga nu laajoon daal mooy noo ngi dolli xasit jànkat xasaat yëpp ñu góorgóorluwaat ci xasida yi rawatina nag kii nga xam ne moo fi nekk waa ko sëñ Tuubaa ñëpp am xam-xam waaye kenn ku ne danga nga amuk bëgg sëñ Muntaxa dafa bëgg xasida yi da koo bëgg bëggu tal ni koo xam ne yàlla dogal na man nga ko soo ci sóoboo rek na ci def lu sedd xolam ndax bu xolam sedd sa xolam sëñ Tuubaa sedd xam naa kon fi ñuy wàccee sunu kàddu rek mooy eh, Baye Fallou gan kàddu ngay dénk mboolem sa soppe yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi lay bëggee bu baax a baax yëgal na Baye Fallou mbaa xam ne àdduna bépp la bëgg tey jii bu fekkoon ni sa jëmm ji mën nañ koo delloowaat ci ndawal fanweeri at ak juróom amna ñoo xamne sax duñ ko yóbbu fanweer juróom rek day xaw ak doon ak mag dañ ko yobbu ñaar ak ngir nga gëna doon gune kon loy denk sa soppe yi nga xamne ñi ngi lay dégglu ci aduna bi wërngal kep rek ndax duma tuddu benn pression di bayyi benn ndax aduna bi yepp ñuy seetaan kon aduna bi wërngal kep loy denk sa soppe yi nga xamne ñi ngi la doon bëgge waxtu wu nekk waaw ni ko wax rek le na Sénégal waye monde anci bala mako xam sax damay genn waaw fi ma bindé fi tek yàlla xam na ko ma xam ko waaye liñ leen ci dénk di leen ko ñaan moo di wolof dana ko aaye wol sa moome te yàlla xam na ne tribunal astafurla waa tribunal la génne sànq euh, police yu bees yi ñëpp xam ñu ma waaye am na ku fa nekk koo xëy bi may génn mu ne ma sa pièce lu ci nekk ma ne ko sëñ Fallou mu xool xool ne ma gis nu sëñ Fallou de Fallou loon gis ma ne ko damay bañ a sàllalu tur wi. ko benn policier ne ko kii de yaa ko xamul waaye. mooy Serigne Fallou njaay mi daan bëggal bindee fii. waaw. xëy na nag day mag. loolu nag dañ cee war a sant yàlla. ndax wax dëgg yàlla liggéey booy liggéey. ba mag fekk la ci te lépp du lu te da wolof dafay wax ne foo yàgg sëgg te kenn fekku la fa na nga sa bopp waaye fii nu nekkoon kat gone yi fekk si nañ fi nu leen ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla dolli leen a dimbali te dolli seen Pastef. ah bokk tàll sëriñ bi ñaanal